alhamdulilahi rabbil alamin mbokk jullit yi ñu ngi màggal borom bi taala wa di ko bàkk di ko gërëm di ñaan borom bi jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc jéggal ñu suñuy njuumte noo ngi julli tey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi di ko ñaanal jàmm moom ak i saxaabaam ak taabiciina lahu bi ixsaanin ila yowmi ddin suñu xutba tey mi ngi tënku ci taxriimu idraari nnaas muy araamal bi borom bi araamal lor nit ñi walla loru ci sunu diggante ñun doomu aadama yi mbokk yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla waaye di leen ko dénk di ko dénk bépp jullit di wax ne ñun ñépp nanu wàcc nekk ay jaamu yàlla waaye nekk ay frère nekk ay mbokk comme ni nu ko yàlla digalee ndax yàlla daf ñoo digal ne wa kuunu ibadallahi ixwaana nekk leen ay jaamu yàlla waaye nekk leen ay frère loolu nag li koy jëmmal mooy yuhibbu ahadukum li axihi min al xayr maa yuhibbu li nafsi kenn ku nekk ci ñun li mu yéene boppam ci yiw ci mbaax ci réussite ci avancé na ko yéene moroomu jullitam ndax li nga yéene sa bopp ci yiw ak mbaax soo ko yéenewul sa moroom moom mooy mbaax ga ngay woote ak njub ga ngay woote nekkul ci yow kon en tant que ab jullit day yéene moroomu jullitam li mu yéene boppam lépp loo xam ni boo ko yéenee nit mu lor ko walla nga yéene ko nit te xamoo lu cay topp na fekk mu nekk yéene bu baax looy bañal sa bopp ci ay nattu aki i lor ak fitna waay waay ni nga ko bañalee sa bopp bañalee ko sa moroom ndax kat jullit jullitay mbokkam jullit jullit mooy moromam xaritam sa mbokk nag su loro yow yaa loru soo ko yéene lu bon yow yaa ko am soo ko àttee lu ñaaw yow yaa ko am kon daal góor góorgóorlul ba lépp luy nekk yiw jéemale ko ci sa mbokk jullit lépp luy nekk lor bul ko ko jëmee boo ko mënee défendre sax fu mu nekkul jéem ko faa défendre suñu dee wax ci moom nga mën koo défendre suñu dee yàq ci moom dara nga mën koo teggi jullit noonu lay dundee waaye bul jël sa làmmiñ di ci lor sa moroomu jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadiisu abi saidin al xudri ne laa darara wala diraar nee na bul loru waaye bul lore boo seetloo nag su ñaar yooyu dajee nga xam ni loru ak lore am na bu ci mën a ñàkk fexeel ba yow nga jël lor gi te nga bañ a lore ndax nga loru yow muñ ko moo gën nga yëkkati lor di ko teg ci sa moroomu jullit loolu nekkul li ñuy tuddee solidarité nekkul li ñuy tuddee mbokkoo te yonent bi dafa ñoo digal solidarité ay wa kunu ibadallahi ixwaana ñëw na ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku sabab lor nit yàlla dana la lor waaye képp ku sabab teg nit coono ak naqar yàlla dana la ko teg kon mu mel ni ni yàllay àttee mooy soo jëlee lu bon di ko teg nit moo xam lu mu yëg la wala lu mu yëgul moo xam lu mu fekke la ak lu mu fekkewul yàlla nee na yow jarul ngay fayu man yàlla maa lay fayul ndax jullit warul yëkkati lor di ko teg moroomam ci bépp côté bu ñu doon xool nag lorante yi am ci suñu diggante dana séddalikoo ci ay mbir yu bari bi ci njëkk mooy lor goo xam ni di nga ci lor ay nit te fekk sax njëriñ la du dellu ci yow maanaam mën nga lor nit lor boo xam ni yow doo ko jëriñoo loolu bokk na ci moom islaam da koo araamal da ko ñaawal bokk na ci lu mel ni lore ci wàllu testament way jur buy dund am na alal walla amul am na moyen wala amul am ay doom ci biir doom ya nag wayjur bi ñàkk xel jàpp na ko wala seytaane mën na ko walla sax ci biir doom yi am na ñu seen yaay di dund ñii seen yaay dundul moom wayjur ji mu bëgg a jël doom yi àtte ci seen biir kumba am ndey ak kumba amut ndey ñi fi seen ndey nekk mu leen di toppatoo ñi seen ndey gaañu walla séyatul ci kër gi mu leen di lor ci biir kër gi su boobaa la koy waral mooy létt ba muy létt di dégloo benn nopp di déglu soxna si ci kër gi lan moo tax di ko déglu ci ay doomi moroomam walla di ko déglu ci ay doomi wujjam ba tax moom lu mu wax rekk boroom kër gi jël loolu àttee ko doom yi ma ni loolu tas na kër yu baree bari dana dem a dem ba àgg sax ci wayjur dina bëgg benn doom bëgg boo xamante ni mën na koo jox ci alalam lu ëpp lam ko waroon a jox mën naa dénkaane ñu jox ko ci alalam lu ëpp lañu ko waroon a jox moo tax borom bi subhanahu wa taala ne min baadi wasiyatin yuusa biha aw dayn gayra mudaar nee na gis nga lépp loo xam ni danay am na tege ci testament boo xamante ni du am lor keneen lor keneen moom mooy lan ñëw na ci hadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nee na inna al abda la yacmalu bi taacati llahi sittiina sana summa yaxduruhu fa yudaaru fi lwasiya fa yadxulu nnaar nee na nit dana jaamu yàlla lu tolloog juróom-benn fukki at yàlla gërëm ko mu dem bay waaj a génn àdduna moom moomu nga xam ne li desoon rek moom mooy mu dee dem àjjana léegi nag avant moo dee mu bind testament mu ne sama alal nañ ci jox diw nangam te diw moomu nekk ku waroon a donn mu jox ko lu ëpp la mu waroon a am borom bi nee na fa yadxulu naar loolu sabab borom tàbbi safara ñu bëri ci nit ñi def leen di dal lu bari ci xeet yi bugguma li tudd ay xeet waaye am na ay xeet yoo xam ne da ngay gis nit kuy dem bay waaj a gaañu jël dénk jarbaatam wala jox jarbaatam loo xam ne xam nga ni jarbaat warul donn dangay dégg ñu naan xeet sàngam seen jarbaat moo leen di donn nga xamante ne alal ji nga am yow way jur bi muy alalu kër gi nag yi xar yi fas yi nga bàyyi doom yi nga jur ñu ne sa jarbaat moo ko war a donn loolu jikkoy ceddo la waaye du jikkoy islaam képp kuy def lu mel noonu ba dee ci tiital sa digganteeg sa borom waaye léeg léegi mën naa àgg sax ci biir doom yi nga woote taxas côté am koo ci faral am ku la ci nangam wala ki la ci doon gën a jàppale ci doom yi nga ni suma ma dee na jël nangam loolu mën naa indi lor borom bi ne tilka xududullah mbir yooyu ay frontière yàlla la yàlla moo àtteel boppam miraas moo séddaleel boppam mbir yi kenn waru koo bousculer kenn waru koo jéggi kenn waru koo romb tilka hududullah loolu yàlla nee na loolu moom mooy ay frontière dem na ba ni wa man yasi llaha wa rasulahu wa yataadda huduudah yudxilhu naaran xaalidan fiha wa lahu adabun muhin borom bi nee na ko mooy yàlla mooy yonent bi jéggi frontière yi yàlla santaane kooku yàlla nee na dana ko dugal safara mu sax te dana am mbugal mu méttee métti loolu ñëw na ci suuratu nisaa gis nga ibnu abbas radiallahu anhu wa arda nee na al idraaru fi lwasiyati min al kabair nee na lore ci ndénkaane yi lore ci miraas nee na bokk na ci bàkkaar yi gën a mag boo seetloo loolu bokk na ci mbir yi beneen bi léegi léeg nit dana dénkaana ci alalam loo xamante ni ñi ko war a donn la waaye la mu leen di jox day ëpp li ñu warul am par exemple way jur bi di dund dénkaane ne tool sàngam walla terrain sàngam may naa ko sama doom diw ñu évaluer te tool boobu walla ñu évaluer kër googu mu ëpp un troisième bi mu waroon a joxe mu ëpp li doom ji waroon a am su boobaa loolu tamit lor la yàlla da ko bañ ndax yàlla dafa séddale mbir yi bu ñu nekkee ay doom du ñu ëpplante bu ñu dee ay góor su ñu dee ay jigéen du ñu ëppalante allahuma lu dul góor ak jigéen dinañu ëpplante waaye nag nga toog nga ni Moustapha may naa ko sama tool sàngam wala Ibrahim may naa ko kër sàngam loolu nga maye ko ci loo xamante ne alal bi boo deewee nekkatul sa alal loolu wayjur bu nekk war na ko moytu ndax suñu jëloon loolu jox ko kenn ci doom yi ëpp le ña waroon a am kon da nga lor keneen islaam dafa tere loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha qad aataa kulla di xaqin xaqa fala wasiyata li waaris nee na yàlla jox na ku nekk àqam kon kii donn kenn waru ko cëral beneen cër doom dafay doon na papa kon amul droit beneen cër au delà ji alal bi nga xamante ni moom la ñu bokk munu ci am droit jabar munta ëpplante munoo yore say jabar nga ni Fatima mii mooy sama ñaareel wala sama aaw moom laa gën a nopp wala moom ma gënoon a toppatoo may naa ko kër sàngam nga may ko kër ba pare ñu miraas mu amaat cër loolu loolu munta bokk ci mbir yi borom bi nee na fala wasiyata li waaris képp ku war a donn kenn du ko jox lu ëpp cëram parce que yàlla moo séddale gënuloo baax yàlla gënoo xam yàlla munoo ëpp yàlla mu yërmande kon bu yàlla nee jabar na am un huitième nga may ko lu ëpp un huitième wala nga jox ko lu ëpp un huitième jeng nga su yàlla nee doom dafa war a am temps nga jox ko lu ëpp la mu waroon a am jeng nga loolu islaam da koy tere moo tax falaa wasiyata li waaris yow wayjur bi tëddeel njaaxaanaay doom yépp ñoom ñoo yem bu yaboo yaayu kii na gën a baax ci yow bu yeboo na nga nopp yaa yu kële nga gën koo nopp loolu sa mbirum xol la waaye mbirum doom yi juge ci dëgg tey boo demee tribunal problème yu bëri ma nga fa am yu mel nii moom moo ko indi léeg-léegi dina am fekk sax du fekk góor gi la léeg-léeg danay am nit gaañu benn ci jabar yi daa di jël mbir bind ay lettre ne diwo defoon nangam sama borom kër noonu na nañu nangam nañu nangam déedéet loolu islaam du ko nangu bu fekkee mbir mu amul seede la dañu koy teggi daal di koy teg fële kon warte dénkaane lu ëpp un troisième nit ki bi muy gaañu alalam un troisième la ci am su fekkee ni ki muy jox bokkul ci miraas bi par exemple jarbaat la bokku ci walla ku mu bëggoon la bokku ci li mu am droit ñu jox ko ci mooy un troisième bi munu koo romb su ko rombee loolu islaam du ko nangu ndax ki bokkul warta jëriñu ëpp la ñi bokk ci loo xamante ni tegewul fenn bokk na ci mbokk yi lor yi nga xam ni borom bi da koy tere ci suñu diggante mooy diggante ñaar ñuy sëy foofu la problème yi gën a gën a gën a gën a bare tey góor a ngi nii di sëy ak jabaram waaye mi koy lor lor boobu bokk na ci tukki bu yàgg jéggi dayoo maanaam tukki bàyyi sa jabar tukki boo xam ne sa jabar xamul ci loo nekk walla sax amaan na mu ngi lay dégg téléphone waaye danga tukki diire bi ëpp na six mois yàgg na te sa jabar soxla na la ndax jabar la sàkku nga ñëw nga bañ a ñëw ci sa coobare loolu lor la islaam da koy tere loolu àtteem ci sharia mooy bépp góor boo xam ni tukki na tukki bu ñu xamul ci moom leen jabaram mënatul muñ diire bi mu tukki ne ko na ñëw waa ji bañ ne du ñëw sëy boobu juge lañu koy yóbboo moom moo koy àtte juge bi la muy àtte seen diggante bu dee ci islaam dañu naan moom juge bi am na droit mu tas sëy bi ndax moom jigéen ji sëy su demee ba mënatul muñ diire bi borom këram dem ah su boobaa yaa problème lor am na su fekkee ndaw si dafa ne nañu tas sëy bi kon su boobaa juge day tas sëy bi ngir bañ a lor ndaw si daf an li darari anha ndax moom mi toog moo gën a xam boppam mën naa muñ wala mënta muñ ci moom la cëggal guy liy dellu su fekkee dafa sàkku ñu may ko baat nañ ko may baat waaye yow góor gi nekk tukki sa jabar loru na mënoo ñëw wala yaa ngi fa nekk am beneen jabar demande na la divorce waaye waaye noppal ko nga may ko baat te nga dem uti keneen moom mu uti keneen ndax kat amaan na fa nga nekk yaa ngi fa yore jabar moom fi mu nekk mënu fee am jëkkër moom lu mu def mën naa loru yowul mu la neex mën nga koo def kon su boobaa islaam du woote taxas côté déedéet dafa la naan yow góor gi da ngay delluwaat xool sa jabar donte ay fan nga fay def nga delluwaat mais mënta nekk rek nga topp damay ut kayit damay ut nangam te fekk lu ci bëri ci bakkan la tege ndax yàlla miy àtte moom moo gën a xam bokk na ci it nag lor yi nga xam ne dinañ ko lorante ci biir sëy mooy bàyyi jabar rek tarku zawja kal muallaqa sa jabar mi ngi ci kër gi beneen jabar mi ngi ci ñoom ñaar ne fi wala ñett nga jéng ci kenn ki bàyyi kenn ki jéng ci kenn ki bàyyi kenn ki islaam da koy tere loolu la muy indi mooy moo xam lu mu la mënti def lu mënti xew islaam nanguwul nga féete kenn bàyyi kenn loolu dafa haram islaam nanguwul ngay defal kenn bàyyi kenn islaam nanguwul ngay jox kii ay bàyyi kee ay loolu dafa ñaaw su fekkee nag góor ñu bari seen njuumte mooy dañuy xeex ak jigéen ci biir sëy léeg-léeg jigéen dina loru <coughs> laaj la baat nga bañ ne ko duma la fase fii laa lay seetaan ba nga torox bépp góor buy def loolu attaqué nga sa borom guerre ndax yaa ngi lor jigéen joo xam ne jigéen la yaay ay doom la rakku ay nit la magu ay nit la te borom bi taala wa tabaarak dafa la wax ni da koy téye comme ni ñuy téye jabar soo ko mëntatee waaye waaye goreel nga bàyyi ko waaye bu ko koñe léeg-léeg nga gis góor goo xam ne day koñe jabaram ci dépense parce que wax na jabaram kàddu jóg na dootoo ko jox dépense wax naa jabaram xol mer na nga dem sa yoon fanaan àll nekk fu la neex rien que rek ngir naqaral ko moom dem na ba am na ay doom mënatul dem bàyyi ay doomam mënatul def dara léegi nga yeew ko mel ni leket bu ñu at ci kaw moom la borom bi di wax fa tadruha kal muallaqa borom bi ne ne waay waay bu leen xatal jigéen ñi yéen borom kër yi jigéen ñi tamit yéen tamit bu leen ko def ndax yow góor na nga war a xalaatee borom bi jox na la ko nee na wala tansawul fadla baynakum allahu akbar borom bi nee na waaye waaye góor gi dellusil delloosil sa xel bul fàtte ngëneel seen diggante loolu mooy lan jamono ba ngay dem di ko labat say moroom ñëwoon nañ mu ban say moroom ñëwoon nañu pàppaan bam ñu walla yaayam bañ yàlla dogal ne pàppaam nangul na la moom nangul na la ñu may la ko sa jouru mariage ni nga kontaanee bi nga koy labat takkagoo ko ni nga kontaanee bi mu ñëwee ci kër gi fan yu jëkk yi na nga kontaanee la ngeen doon séq lépp ci teraanga mu di la déggal di wuyoo sa sant di la defal sopp la bëgg la ñépp xam lu mel noonu yàlla nee na loolu yow góor lu mu metti metti bu ko fàtte wala tansawul fadla baynakum waaye yow góor na nga bàyyi xel ni yow yaay góor na nga bàyyi xel ni yow yaa war a tane ndax ñun ci suñuy expression fii ci senegal dañuy wax ni jigéen ni ween yi sëggee la xel mi sëggee su defee lu dul noonu walla mu tooñ la fàttalikul démb yàlla loolu la bëgg nit day fàttaliku ku dul fàttaliku lu baax rek nekkoo ku baax kon borom bi nee na wala tansawul fadla baynakum bu leen fàtte ngëneel bokk na ci it nag yow góor bul topp sa bànneexu bakkan bakkan da lay digal lu bon bul topp seytaane mi la naan dalay ñaan baat bu ko ko may léeg-léeg jigéen ñaan baat góor duma la ko mësa may ba pare yow nga dem takk jabar nekk ca la neex ndaw si topp la tout le temps ci may ma baat nga di ko toroxal di ko mëne di ko def lu bon di ko suufeel nanguwoo koo bàyyi nanguwoo ko tee loolu islaam da koo xaraamal dafa ñaaw yow góor moytul jëf ju mel nii moytul lu mel noonu wala sax jigéen dem na ba sëy bi mënatu nekk mu ñaan la baat way de nga wëlbati ko ne ko la ma defoon ci yow lépp jox ma ko loolu du xel loolu du xel xoolal doom yi ngeen am xoolal juróom-ñeenti weer yëpp mu ëmboon sa doom xoolal ni mu nekkee sa yi doom mais seytaane mën na la say mbokk mën nañ la xel mën nañ la léegi nga topp lu mel noonu ba ni yow doo ko may baat wala dalay jox nangam nga doog ko may baat naam am nga ci droit bu dee moom moo bëgg a génn mën na laa delloo waaye nag gor du fayiku jullit bu baax du fayiku jabar déedéet parce que séq ngeen donte ñaari bis ngeen fanaan donte weer ngeen am donte am ngeen benn doom loo ko ti defal war nga koo mën a fàtte ngir dem jël keneen moom mu jël keneen nga bar koo xoj borom bi nee na fa kayfa taaxuduunahu wa qad afda baadukum ila baad wa axadna minkum mithaqan galida dafa mel ni yàlla bi muy wax lii nee na kaawtéef nan la góor di laajee jigéen la mu defoon ci moom te àgg nga ci moom foo xam ne mënatoo ko koo delloo àgg na ci yow lu mu mënta jël xam nga li may wax yow góor gi àgg nga ci soxna si foo xam ni mënatoo ko koo répartir mukk mukk mukk mënatu leen ko répartir moo tax borom bi nee na wa kayfa taxuzuunahu ana nan ngeen di ñàkkee xel yéen góor ñi ana nan ngeen di ñàkkee xalaat yéen góor ñi naka ngeen di ñàkkee personnalité naka ngeen di ñàkkee jom bay fayiku seen jabar li ngeen defoon ci moom lan la lan moo ko fi jar alal la yaa ko liggéey yaa defoon ci moom yaa ko liggéey àgg na foo xam ne ñaan na la baat goreel nga may ko baat te nga julli ñaan yàlla am keneen mu am keneen moom mu libre nga libre ngeen am jàmm su fekkee amoon ngeen di doom jàmm day am mais da ngay gis koo xamante ni dana maye baat ba pare nangu doom yi lor soxna si wala mu bañ a maye baat pour lor soxna borom bi nee na wa axadna minkum mithaqan ghalida yàlla nee na cey waay jigéen ji àgg na ak yow foo xam ne jël na ci yow kóllëre boo xam ne jigéen góor gi ko njëkk a denc du ko mës a fàtte góor jabar ji mu njëkk denc du ko mës fàtte imagineel tey yow góor gi nga dem takk jabar moom mu toog néegam di jooy di jooy parce que mënta sëy am na ñu ko bëgg ñu pare pour mun koo jël mais yow nga gekk ko rek ne ko il faut nga fay ma temps ma doog la fase mënu koo fay ay mbokkam mënuñu koo fay nga goree di fàtte démb pourtant bu la islaam ne woon fayal li nga jëlee woon ci moom démb ndax mën nga koo fay yow góor gi mënoo ko fay moo tax borom bi ne fa wu taaxuduunahu naka ngeen di jëlee lu mel noonu di ko laaj wa qad afda baadukum ila baad wa axadna minkum mithaqan galida kenn ku nekk ci yéen àgg na ci moroomam foo xam ni da ngeen di gore te fàtte beneen bi bokk na ci lor yi nga xamante ni danañ ko lorante lu bëri ci tribunaux yi ak police yi nga xamante ni ñaar am nañu problème bi ñu amee problème kiy bind PV lu ci bëri léeg-léeg da nga koy gis léeg-léeg police entendre koo xam ni innocent la parce que biñ koy entendre tiit na te amuñu droit boo gisee loi yi di wax ni képp ku ñuy entendre avocat dafa war a toog lan moo tax ndax avocat xam na loi li ñu koy posé question avocat moo war a toog su fekkee nar na déraper ñu dalal ko su naree tiit ñu dalal ko mais imaginez police wala gendarmerie walla kenn téye nit di ko enquête di ko di ko toroxal di ko masse courant di ko lakk di ko dóor di ko tiital nit boo ko tiitalee ba génn fitam lu ne mun na ko wax li mu wax nag nga bind ko fekk yow yaa causé li tax mu wax lu amul lii mu wax ci amul ñu tëj ko ci kaso nga foog ni yow mi ko entendre yàlla du la ko laaj ah non bu leen yombal affaire yi yombewul noonu it bul soltee ni rek foog ñu la neex nga def bul nekk policier wala gendarme wala ngay enquête di def lu la neex non c'est pas normal soo ko defee def nga lu la neex yowmal qiyaam sa borom mi ngi lay xaar parce que napp nga nit ki yuuxu nga ko toroxal nga ko teg nga ko lu metti ba mu ne waaw te du waaw ba mu ne déet te fekkoon waaw la kon yow yaa ko def kon yow mi def lu mel noonu def nga musiba kay bind tamit moom it def na musiba léeg-léeg nga laaj nit ba pare mu wax ba pare nga bind jàngul tubaab mais da nga ko war a liiral li nga bind firil ko ko yow mi def enquête bi ba pare bind PV bi da nga ko war a liiral question yi nga ko laaj ak li mu ci tontu jël ci sa temps ndax mbir mi du mbirum àdduna du mbirum alal du mbirum dund mbirum yowmal qiyaam la lu nu àtte fii danañ ko àtte yowmal qiyaam kon nanga nga tey yow mi bind léegi boo paree nga liiral ko li ngeen wax yépp ba mu leer lii de yaa ko wax mu ne la waaw nii la demee nga ne waaw nga doog ko ni signeel waaye laaj ko muy wax nga bind fekk tiital ngeen ko jël ngeen fii tam mu wax ba pare nga ne ko signeel mu signé ñu dem tribunal di juge ne ko yaa wax nangam mu ne waxuma nangam mais loolu c'est pas normal warul mën a nekk su fekkee moom mi ne waxul nangam waxoon na ko te fekk dëgg la islaam moom lay topp mais yow miy bind PV islam nee defal très attention moo taxit boo seetloo greffier yi nañu teel a bàyyi xel lu mel noonu ñii enquête ci police yi enquête préliminaire yi nañu teel a xel bàyyi lu mel noonu lépp lu yoon tëral nañu ko topp ndax islaam alaysa allahu bi ahkamil hakimin yàlla nee na moo daq atte ñépp te atteb yàlla yaay waxal sa bopp yàlla du la napp du la tiital du la du jël sa fit du la def dara su fekkee nag nit ki da ko koo mere ba di ko enquête di ko jaay doole loolu yow julli bi war nga ko bàyyi xel borom bi dafa tere lu mel noonu beneen bi nga fekkee histoire war a seede xam liy dëgg nga nëbb dëgg bi yàlla nee ne wala tatmu shahada bu leen nëbb li ngeen gis loolu baaxul beneen bi nga xam ni mbir mi demewul nii nga fexe ba mu demee nii ci kaw ëpp nit doole wala tooñ ko yàlla nee na na ngeen ko bàyyi xel ndax loolu baaxul nit na moytu lu mel noonu bokk na ci lor yi ñuy lorantee nag mooy bayul muttar mooy jënd walla njaayum aji loru waa ji miskin la mu ngi ci këram xëy na amul dépense nattu ñëw na faqiir la mu jël rajoom wala teleem dem di ko jaay ngir ay doomam am lu ñu lekk dem di ko jaay ngir mën a fay courant wala mu fay ndox xam nga ni bu jàmm rekk amoon du jël teleem di ko jaay bu jàmm rek amoon du jël frigoom di ko jaay léegi mu jël frigo bi di ko jaay ñëw ci yow commerçant bi nga teg ko lu mu àttanul ndax xam nga ni àttanul lu mel ni xam nga ni néew doole moo tax muy jaay ak bëggul mu lekk nga dóor ko prix boo xamante ne leer na la ni bu doon yow doo ko bëggee noonu islaam nee na loolu lor la nañu ko bàyyi xel jullit day dawal yërmande ci moroomu jullitam nit ñëw présenter la frigo boo xam ne war na jal 100000 francs ne la fan yi kër ga dara doxut moo tax ma di ko jaay nga ne ko non non 15000 francs non lii baaxatul 15000 francs lay jar jaaykat yu bëri dañ koy def ku mu neex nag defal la neex waaye ndax lii nga def tey ëllëg bu la dalee bëggoon nga ku ko teg lu bon bon xoola au moins moitié li muy jar ndax li tax mu di ko jaay nattu la ah mën na la dal de bëri nga alal bëri nga milliard mais mën na la dal suba mën nga dem dootoo am dara suba mën nga dem magasin bi kenkaayar bi lépp daanu tus dootu fi nekk yàlla mooy séddale joxul kii xañ kii ci coobaram la ko defee heure bu ko neexee mën na wëlbatiku mais jàppal ni sa moroomu jullit la d'abord jàppal ni borom kër la comme yow deuxième troisième bi dawalal yërmati ñi moom quatrième bi xoolal su doon yow lan ngay bëgg ñu delloo la ko lan ngay bëgg maa ngi rappelé wu mës naa toog sama place su grand ci marché Thiaroye benn góor ñëw taxaw ci wetu place bi di wax ba ci yàgg rek jooy ñu taaj ko ci maam bi laaj mu ne mu ne sama doom xoola xool xoola mbubb mi maa ko xotti ñawlu ko lépp mi mu dikk ay vingt cinq mille mu ñëw di ko jaay nit may fay quatre mille francs ndax rek dama amul dépense jooy ndeysaan wallaahi sama xool baa ngi metti nga xam ni kii tey lii muy jaay bugg koo jaay mais nee na su ma ko jaayul kër ga duñu lekk kooku da ngay bàyyi ci moom xel sénégalais la comme yow dëkkandoo la comme yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy wax lu ama am solo nee na soo amee yiw boo mën a defal sa mbokk jullit nanga ko ko defal waaye dëgg-dëgg bu ko yokkal problème jullit kenn waru ko yokkal problème kenn waru ko yokkal problème kenn du wax ni nag jënd bi nga jënd ci moom lu tuuti lool araam na ba jéggi déedéet mais islaam dalay wax ni loolu nu ko sóor ndax ëllëg lu mat a bàyyi xel beneen bi bokk na ci lor yi nga xam ni danañ ko lorantee mooy nit ñëw ci ab koñ walla ci dëkk samp fa usine boo xam ni la muy liggéey saxaar sa baaxul benn peut-être mën na nekk sax chimique lay nooyiloo nit ñi nit ñi di ko noyyi dem nga ci état ut nga say kayit sa lépp te xam nga état ni mu organisé am na genre même même am am genre atelier yu mag yoo xamante ni kenn waru ko teg ci diggu koñ ndax fi nit ñiy dund yi ñuy noy yi daf leen di indil problème ay ammoniac mi ngi ci ay lor ñu ngi ci chimique ñu ngi ci loolu yow am nga doole fay nga état état yoonam nekku ci nga teg ko ci quartier pauvre yi pauvre yi di ko yi xale yi di ko yi si ndax yi di ko noyyi ba yéeg xar yi di ko noyyi di xëy di feebar feebar yu ñu xamul lan moo ko causé nga foog ni yow sa usine bii li ngay gàññe nii yëpp doo ko lay ci kanamu yàlla ñii feebar ñëpp yaa leen ko teg parce que du fi ñu ko waroon teg su ñu demoon ci dossier yi normal fa nga waroon jëm du place bi ñu ko bàyyi kon yow mi moom société bi ak loo ci mënti am ay revenu yowmal qiyaam da nga taxaw nga layoo ko yàlla xale bi ci feebar ba dee ci góor gi ci feebar ba dee ci bëy bi ci feebar wala nag bi ba dee ci di ko lay ci sa kanam yàlla non àdduna doxewul ni ñu ko yaakaaree déedéet mbir mu nekk dañu koy topp su ngeen gisee tubaab yi ñoom seen lépp dañ ko organiser ba am na yenn usines yoo xam ne kenn du ko def ci digg capital am na yenn mbir yoo xam kenn du ko def ndax poussière bi saxaar bi lor bi na nga bàyyi xel yow it bokk nga ci ñuy lor julli ñi yow tuxkat bi na ko bàyyi xel bokk nga ci ñuy lore ndax da nga jël sa cigarette xëcc ko ëf ko sànni ko ki ci sa ginnaaw mu koy noyyi pour yow dara nekku ci quoi war nga tux parce que ci liberté lañ nekk nga foog ni ki nga ko noyyiloo te neexu ko doo lay ak moom yowmal qiyaam da nga koy lay ak moom yowmal qiyaam parce que yaa ngi lor ay nit yaa ngi toroxal ay nit yaa ngi yàq ay dund nit yaa ngi leen di noyyiloo lu ñu buggul noyyi rawatina bu dee ci biir oto amoo droit nga tux ci bu dee ci biir société amoo droit nga tux ci bu dee ci mbooloo mu ñu toog di waxtaan amoo droit nga tux ci parce que ña fa nekk am na ñu dul tux ñu dul tux boo xëccee xëx ko nit ñi yaa ngi leen di lor mi ngi mel ni nga jël poson rek xëpp ko biir mbooloo ñëpp noyyi ko kon ku deew yaa ko rey loolu nañ ko bàyyi xel beneen bi bokk na ci lor yi nga xam ne islaam da koy tere te koy defal kalante mooy teg lor ci mbedd dëkkandoo yi nga dëkk ak nit ñi rek nga ni fii mbedd buur la xëy rek gas sa pax ci digg mbedd mi sareet du jàll fas du jàll oto du jàll mbedd buur la wala warul lor ay moroomu jullitam walla nga samp luy tee nit jàll yow danga am kër ci koñ bi sa moroom am ci kër mbedd mi nii la mel lii la mbedd la ñépp ko bokk nga samp ay pono rombale ko sa kër peut-être dangay daw lor mais yaa ngi lor li tax nga samp ay kono rombale ko sa kër pour bañ oto saaraan mbëkk sa miir su mbëkkee sa miir da ngay perte loolu moom lor la waroo koo nangu waaye it waroo samp lu lor keneen kon mbir mi da nga koy xool fi mu toll xoolal sa kër ba nga koy tabax 300 mètres carrés nga doon tabax ndax génne woon nga côté bu nekk 1 mètre carré ba nga mën a jël loolu loolu nga war a jël 1 mètre carré ba nga moom mu topp ci sa kër te na fekk muy sa kër mais bu dee sa 300 mètres carrés juste nga ko jël boo tegaatee pono même mu sës ci sa miir bàkkaar la yonent bi neen lu tolloog tibb suuf ku ko jël ci yëfu jàmbur danañ la ko teg fii ci bàmmeel ba yowmal am ñaata nit ñooy def lu mel noonu koñ bi daal maa fi nekk rek samp samay pono sareet du jàll oto du jàll samp samay mbir sareet du jàll oto du jàll parce que paa tàng xol nga maa tey ngay doxalee yooyu ngay def jullit du doxal lu mel noonu lépp looy aare nga di ko baare suñu nattee na nekk loo bu nekkee loo moom xayrun yàlla dara réeru ko bu dee loo moomul loo am am pexe jubóog police jubóog état jubóog lépp jubóog sa borom moo ko gën ndax lii lépp bis day ñëw dana daal di jeex beneen bi bokk na ci nañu moytu it nag am xew jël koñ bi yépp bàyyi bàyyi woo fu nit ñi jaar teg sa musique tëgg nit ñi tegle seen siège fu nekk kenn du mën a jàll loolu islaam da koy tere nañ ko moytuñu ñun ñëpp islam daf koo tere booy baas ci mbedd bàyyil koñ fu nit ñi mën a jaar suñuy baasee it nekk na xew waxal ak waa xew bi ne leen bu oto dee ñëw wala saret déplacé leen may leen ko mais dangay gis ñu audacieux ñoo xam ne dañuy toog oto di ñëw da kenn puusul lañ lay wax te fekk oto bi xamoo lu ci nekk aman na day yóbbul nit soxla wala muy jëlee nit soxla muy yóbbu ko feebar wala muy jëlee ko feebar te nii nga réagiré bis bu ñu la defee bis dana metti ci yow kon sóoral lu mel noonu islaam da koy bañ moytu it di xew teg sa musique këndëng këndëng kenn du dégg yow yaa ko bëgg yéen a ko bëgg mais ndax laaj nga waa koñ bi ñëpp balaa ngay jël seenaa musique di ko teg ndax danga nga am ceet wala ngénte di musique koñ bi danga leen a war a wër nga laaj waa koñ bi fi musique bay àgg ah man de damaa am xew xale yi dañoo bëgg a nàngam ah nàngam ba ñëpp kii xam ne loolu amul problème nga laaj ndax amul ñu feebar xam nga dafa am yoo xam ne ñun dañ koy yombal fekk yombul est-ce que mën nga wër ci koñ laaj ndax kenn feebaru fi ndax samay doom dañoo war a musique dañoo am tiit dañoo am nangam nangam li ngay dégluloo nit ñi këndëng këndëng tëgg gi fecc bi yaa ngi ko def ci xew fekk li ngay xew yaa ngi loru yaa ngi lore loolu islaam da koo bañ kon mbokk yi nañu ragal yàlla borom bi nee na wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan nee na dimbalante leen ci lu baax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci loo xam ne day lor kon nag lépp lu nu fi wax nii waxu sunu boroom la ñun ñépp nañu koy bàyyi xel su ngeen gisee dëkku diine yi ak dëkku tubaab yi yu mel noonu dañ ko fay interdit ndax lu nekk dañu koy sóor mais ñun jullit ñi ñun ñoo ko war a doxal suñu biir suñu ko doxalee rek ñépp dañuy daal di am jàmm problème du am fi may jeexalee mooy ci benn quartier ci côté Gounass la bëgguma tudd tur bi dafa am benn góor boo xamante ni dafa nekkoon nekk ku audancieux koñ bi daanaka koñ bu ndaw mu teg ñetti pono yu mag ku wax rek coow lu bari ku wax coow bari te moom du ci buntu këram la ko def indi nañ ci histoire ay yoon nit ñi dem ci yoon xëy na am na fu mu jaar mais gis nga nattu yàlla buy ñëw day jékki rek ñëw dañu jékki ci waa këram dañ doon togg gaz bi explosé te xoola jamono yi nga xam ne presque ñetti mbaar ba gunaas ay kër yi braak la woon gaz bi explosé kër gi na jëppee tàkk gis nga nit ñi di jéem fay bi ma bi sàppar ñooyu mënuñoo dugg il fallait que xale yu góor yi di gas di sulli affaire yi xoola temps bi ñu fa perte di gas di sulli affaire bi pour oto sàppar mën a dugg si sam papa rahimahullah yal na yàlla yërëm ko tey mi ngi ci dëgg ne ko diw lii lañ la waxoon li nit ñi doon coow nga leen di jaay doole tey nattu baa ngi nii aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaani muslimina fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim